ak euh, président président waaw loolu nit ñi wax hmm, est-ce que am na est-ce que mais li ma la mën a wax man en termes de valeur intrinsèque en termes de vision d'un pays Ousmane Sonko ak Idi mënuñu liggéey c'est pas possible Idi Idrissa Seck c'est l'antimodèle de tout ce qui peut se faire dans un pays xam nga dëkk bi pour defar ko il faut que fukki at liggéey guddi ak bëccëg teg lépp ci yoon ku mel ni Idi gëmuma ne loolu bokk na ci ay valeur am Ousmane Sonko ak le discours de rupture qu'il prône gëmuma ne ñoom ñaar mën nañu toog ànd liggéey gëmuma ko man. d'accord maintenant je suis pas dans le secret des dieux. Mhm. mais gëmuma ne ñoom ñaar mën nañu ànd toog liggéey koo xamee ne tu es avec l'opposition tu arrives au deuxième au premier tour wax ji yëpp le lendemain. ca suba élection yi yaa ngi commencé waxtaan ak Macky Sall koo xamee ne opposition def un bloc sous Ablaye wàdd ci guddi ngay dem palais de la République di waxtaan ku mel noonu jarul wóolu pour dénk ko sax kër asama